beneen enjeu bi Barthélemy vous vous débattez toujours ça fait presque onze ans dans des problèmes judiciaires dans l'affaire Ndiaga Diouf. Euh, non c'est pas un dossier judiciaire c'est un dossier politique. politico-judiciaire. appelez ça voilà comme vous voulez. léegi beneen enjeu bi mooy c'est la mairie de Dakar bu justice jëlee benn décision bi sànq wax nga ko ngay na nga ne mosoo gis ku xeex. ba daaneel nguur mosoo gis ku xeex ba am li mu bëgg ça c'est toujours terminé autour de la table donc yow xëy na jàpp nga ne pour loolu yëpp ñu épargner la bañ a la révoquer Euh, à la tête de la maire de Dakar comme que ni ñu ko defee woon ak Khalifa Sall aussi loolu aussi waxtaan mën na ko régler. waxuma la que mënuñu xeex bi jël nguuram ah. mën na nekk mais à un prix qui n'en vaut pas la peine parce que moi à ce prix-là je ne suis pas prêt pour que mes enfants paient le prix. nee naa la match bi commencé gul échauffement la on est à plus de 40 morts te match bi commencé gul. mais li ma lay wax nii aussi beneen match bi su commencé. Mhm. nu muy demee si on doit prendre le pouvoir et en devant marcher sur des centaines de cadavres man Barthélémy Diaz yàlla bu ma jot ci nguur gi parce que jàngalu ma ko. man ñaar de surtout na ma j'ai 48 ans léegi ma am 50 ans mes parents sont en vie. et si on doit vous révoquer de la mairie de Dakar dama ne xoolal lu ma yàlla may. su ma ay waajur ñu ngi dund ba tey te yàlla may leen wér-gu-yaram ñu ngi dem di dikk su ma doom yi sant yàlla dara jotu leen man je suis député maire de la ville de Dakar man lan la ma dese man lan la ma yàlla desel yàlla na ma yow lii laa la nattoo di nga muñ. mu ne déet yàlla man d'accordu ma ci di affaire bi ñu lay demee léegi nii par force léegi nii man ko def parce que yebu ma yàlla yàlla nag may na ma kàttan ma mën a xeex lu ma gëm mais ma teg ko ci yoon duma ma laal alkaati yi du ma laal gendarme te je ne donnerai pas des instructions pour que des gens se fassent tuer je le ferai pas mais la résistance je le ferai moo tax ma ne la si on s'entend pas dans ce dialogue on sera obligé malheureusement chacun retourne chez lui et dans son camp et refaire ce qu'il la mairie de Dakar bu ñu la ci naree révoqué. non je vous rép je serai pas révoqué kenn mënu ko. Hmm. su la neexee nga woo fii juriste bu la neex. Euh, loi électorale dafa am ay ay ay ay ay ay crimes mu dax ñu ne par exemple tey lii on considère que crime la dañ koy atte en chambre criminelle wala n'importe quoi ñu ne suñu nee daan ci loolu yow mënatoo bokk ci lii ak lii ak lii. man suñu ma condamné on me condamne pas dans le cadre d'un crime regardez bien parce que on a reclassifié les faits depuis l'appel effectivement je vais perdre mon mandat de député mais man ba may judd bind ñu Barthélémy Dias député te man si le président Macky Sall me retire mon mandat de député mais il sait une fois de plus que daf ma jaay doole parce que j'ai été élu